يا حبيب يا حبيب رمضان mu gën ci weer yow nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngela waay bu ci mooy yàlla tubal jégalul dellu ci yàlla lu mën ci lu baax ci tay mengook safaan ba nanga ko baay ah, ah, ah, allo jonga ma rafet booy na mën naa la man su ma tëddee guddi dama yàkkamti bët seet ndax man bu may déggante ak yow moo ma dàqal ni may fanaanoo waay waay man kii ma yor man moom benn rek la man benn xab xel bii bii bii bii benn boobu ah du sens mukk te man yow xam nga ni man yëfi doomu xaraam yi may yi ma soxla yow yaa ma koy jox yow yow yow kii xawma lu tax ma takk ko déggal ay waaye ndaw samba ay oh, ah, ba ba loolu ba loolu kii bëgguma ko man yow yow yow fekk takkuma la woo ma jàmm man yow laa bëgg man yow yow man yow laay wër man man dama la bëgg ci sama biir xol laa bëgg man sama biir xol non koor gi ah, weer waa dégg naa feeñ na man dama bëgg weeru koor man moom koor rek laa bëgg man waaw waaw waaw waaw weeru koor non a ah, toogal toogal eh, xanaa xamoo ni weer wi kay ni mu ko bëggee daa ëpp sax eh, ndax koor leen gi li tax mu gën maa neex daa wutee koorog daago ndax eh, koorog daago toog sa kër la waaye koorog leen gi nag koorog aawoy la jege sa aawo la tudd jege sa aawo mu tegal la sa ndogu bu jëkkëram amee dépasse ah jërëjëf kay aawo yi ah, ah moo aawo yee ko yor man ba ma juddoo laa maawo afa ah, si hôpital bi ma juddoo lan ma ma yóbbu aawo man waaw waaw neex a xool ah waaw dina déggante dinaa la woo. waaw waaw kay waaw waaw waaw njool mu ñuul te rafet. Eh, dafa am loo ma foon. daa bëgg marñeeroo parce que may li la waxati li daa bëri da nga ne moom dëgg ci kër gi. dëgg ca mbedd ma dëgg la dëgg ba ci biir sëy bi. ah dëgg ba ci lan. waaw. aw ma nag takk ba ñeenti far ay gal astafurlaa. Uh-huh. aw ma droit takk ba ñeenti jabar nag. takk de moo gën doxaan nag mbaraat mi ci dëkk bi takkal indi. Ah. wax nag ibi sax man ma ma maa tey. nga ni yaa yaa yaa tey nga wax. ah yaa ma si sol de déggoo ma wax fi maa tey de maa fe laa wax maa kay. du ma wax ak yow comme que nga may tontu maa tey nga ngi lay xaar bu deux heures jotee guddi ci néeg bi. li nga xam man maa yow comme moom kàddu ci biir kër gi. xoolal bëccëg li ci yoonu guddi. Eh, eh, eh, xoolal bëccëg li ci yoonu guddi. Ah, seytaane daa gaaw de waaye waaye yàlla yàlla musal si seytaane ah, sama diggante. ah ah waaye yow lu tax moom problème mu bëccëg ñu koy réglé guddi affaire nag war nañ koo xoolaat nag de ah ay wax leen ci lii waay ah jom na waay wax leen ci waay tubal jégalul dalul ci yàlla lu mun ci nu baaxul ci tay mengoog safaan ba nanga ko baay mooy wayu garaaw lañ way ay àll bi jalul yàkkamti bi bu dee yàkkamti ndax way way tim bu yoo bu yoo bu yee yaay kin kin kin ah ehe eh, bu yoo baay ki gin kin fas ki gin kin sax tararas ki gin gin caw eh eh, eh, eh la dafa kaay la yow yow yaa salte waa yow waaye yow yaa mën a fen yaa ngi jàkkaarloog man fii waaye jàmm waaye yow gisuma la woon ni eh, eh sama waxee may sama jàmm dama lay defalal affaire fii léegi kan ngay defal affaire yow yow nga am wax bu xaa xamaa xama ma yow dama lay song ñama la ñaali ñëfaaxu nga xamee maa waaye yow yow jéem ma laa xam sax yow lan la bi dama da ngaa gi nga doomu aadama sooy dox ci mbedd nga war a civilisé tuuti wal taxul ngay foloomu di mbacc mbacc mel ni jigéen ju wéelul lay mel ku yegg si kawam waaw waaw yaa ma gën a yëbaate maa taj. réew ba day man xamu waa koñ bi leen tax a eh, yëbaate. sama waxee da ngaa lew ma ñu fële léegi. daa réew. mais xaw ma xaw ma def yow kii daal lépp xanaa. Eh. yow laal ma laal ma ko laal laal ma gis la ma si la. taxaw eh, taxawul ni taxawul bu ko so. yow bu ko so loxo laalee ma ñuuf la bay si sa kaw laa wax. na waa du wax wax ma na ma wax da ngaa lew léegi ma ñuuf ko. da ngaa réew. Eh, eh, eh, baal jàmbur baal jàmbur baal jàmbur bi la. waaw wuy ko wuy ko wuy wuy sa waaw waaw. waaw léegi sa loxo li muy wut fii. waaw kay très ah, di soxna si man bu ma si wax de. tege yi ngeen doon. kat kat mooy eh boo ma waxee tege ma ñuus la laa wax yow ma lay dimbali kii fekk nga tontu ba pare ma lay dimbali daan damaa tege. am nga ci lu la leer yow yaa ko tooñ ndax man seen naa sobi gis naa fa lu landam de nga xam damay laal say ween eh xoolal man magam dëmm laa du ma sa morom laa lu may eh, eh, dee say ween eh man namp laa nekk guddeeg bëccëg la lu may dee say ween eh sàcc mooy réew eh, eh da ngay fen amoo jabal kii amul jabal ko def gis naa mu def nii xoolal mu ne nii gambax bi gambax bi rek aar na ma ne ko nekk nii ma yow yaa mën a fen ma jël sama loxo teg ko fii nii la def neex na neex na neex na xaaw xaaw ma wala ka ah.

lan laa def yow yaa yow yow yow yaay seetaan yaay yaay fa yaay fii fan la fa yaay yaay yaay yaay tamaate loxati yaay la fa jox yow yow yow yow yow yow xam nga ne yow yow sa tul bi sa tul bi yaa ko wuyoo yow. ndax dimbali de. yaa sara yow yow wenn jàmbur yi lan nga siwuti arte la moos bi dal li li nga xëy a fen dama la gis léegi ko ñii sax ñii laa ko def. fen ah a ka ka ka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 ya Allah loo ci ñaan may la ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yi shahru Ramadan ya karim Ramadan ya habib Ramadan moo ëmb leen moo gën ci weer yow nga matal julli juróom yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelaw waay bu ci mooy yàlla tuubal jéggalul dellul lu mën ci lu baax bul ci tay méngoog safaan ba nanga ko baay